نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أه الحمد لله قاتم السليمان برنا في جامعنا جوالا في سنة قال نونكو يدقين نكو يحصنوا ريومي وعي دفع جوغي تي بن كوي جنة بني وقت ضح تهتيل ضح تهتيل مومو دوم لا في بن جنة شياطين بني وقت لم خنا جهدي lam xana jaxadin ñu note kon dox taxtin moomu euh, moom moo créé woon benn xeetu xaatim ginnaaw bi nga xamante ne yonent yàlla Souleymane alayhi salaam faatu na ndaxte yonent yàlla Souleymane dafa nangu woon seeni secret ñoom jinne yi suuloon ko ci gàngunaayam naayam gi bu mu faatoo lu yàgg xamuñ ne faatu na ndax ragal gi ñu ko ragaloon ak borom subhanahu wa kàttan kattan mu ko defaloon ci kaw jinne yi xamuñu ko ba max yi commencé lekk ca gàngunaay gu mu toogoon muy seize ba mu toogoon ci la ñuy doog a si sone ne yonent salaam faatu na ci la yenn ci ay jinne li njëkk a def mooy sulli li ñu suuloon sulli lu yonent yàlla Suleymaan suuloon ci ay njabar ci ay ñaawteef la ñu njëkk a tasaare ko gaaw ci ci àdduna bi tasaare ko xaadimu Suleymaan bokkoon na ci li ci tasaaroo woon ñoom nag jinne boobu nga xam ne mooy dox dox nga xam ne bokk na ci doomu lam xana jaxati mi xam ne mooy caatam muy ndax taxtiil fax taxtiil xas taxtiil moom mu nekk ci doom yi mujj moom moomu moo tasaare li nga xamante ne mooy xaatimu Souleymane ba pare tuddee ko Souleymane ne mooy xaatim bi soo fekkee xaatim bi da ngay gis dañuy def ab étoile def ab ab rëddaat euh, maanaam daal juróom-ñaari xaraf lay nekk seen xaatim boobu muy xaatimu Souleymane juróom-ñaari xaraf lañ koy tëggee di nañ ko envoyé ngir mbokk yi xam lan mooy xaatimu Souleymane ak ban xeetu bokkaale moo ci nekk ak jinne boobu nga xam ne moom la wax dox dox nan la ko liggéeyee woon ba am ko ci xeetu mooy yàlla ci xeetu ñaawteef ba am xaatim boobu mooy ñu tuddee xaatimu Suleymaan waaye nag dañ ko tooñ dippee ko ko waaye ak njabar la gu sax dakk dakk ndax kenn ci kuy jinne yi muy dox dox moom moo liggéeyoon xaatim boobu li jiitu xaatimu Suleymaan laata nga xamante ne mu ngi ko tuddee xaatimu Suleymaan ñoom mu talsam rek lañ doon wax mu talsam nga doon wax ginnaaw gi nag la ko dippee xaatimu Souleymane ngir lan ngir yent yàlla Souleymane ñu gàkk gàkkal ab deram wala yent yàlla Souleymane jullit yi nga xamante ne ñoo ngi ñëwaat ñu tuddee ko xaatim ba pare wax ne yent yàlla Souleymane ab jabarkat la woon ndax da doon def nangam jinne yi da doon def loo nangam jinne yi léegi nag xaatim boobu dafa làmboo ay ay ay sirru ay secret yoo xam ne ñoom dañ ko cee doxaj bokk na ci ñi nga xamante ne mooy jabarkat yi dañ ciy def di toj ab liggéey wala ku ñu liggéey ñu defee ko wala suñu liggéeyee ba pare ñu ne moom mooy sécuriser mooy code bi nga xamante ne mooy aar liggéey ba liggéey boobu jinne du ko mën a yàq pas-pas boobu lañ ci sax pas-pas ñu ci fas moo tamit euh, xaatimu Souleymane bi nga xamante nga def ay carré carré mu war a nekk vingt six carré am na boo xam ne vingt six carré lay nekk am boo xam ne musallas lay nekk mu musallas mooy ñett carré wala mu nekk murabba ñeenti carré bu nekk ak li muy dox bu nekk ak nu ñu koy tuddee moom lay dox waaye nag xaatim la boo xam ne doq tahtil moo ko créé woon jamono jooju nag laataa mu ko tuddee xaatami Souleymane mu ngi ko tuddee woon euh, mu talsam la tuddoon wallahu taala alam naam euh, lii nga xamante ne moom la ñu indi ci nataal lii mooy xaatimu Souleymane ci nuñ ko tuddee léegi lii nag am na ñenn ñoo xam dañ koy def musallas ñenn ñu murabbaa ñenn ñu muqammas wa ila aqiruha ku nekk ak na nga ko war a liggéey ak ci nga ko war a defee waaye nag bokkaale du ko féete kaw shirk du ko féete kaw yàqute jamono ji di ko féete kaw kon mbir la boo xam ne dox dox tiil moom moo ko solo woon moo ko jàngale moo ko tasaare moo ko dippee Suleymaan alayhi salaam waaye laaloowul ak moom dara aleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu mi naam moccu de gaa fii la ko islaam fekk ndax islaam bi muy ñëw dafa fekk lu ñuy wax mocc mocc boobu ñu am nuñ ko doon jëflantee bi yent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee tere woon ab mocc ñu dem ba ci biir mu yoonalaat ko ba moom da ko doon def léegi mocc boobu dafa am ni ñu koy defee muy lan mu woo ñi nga xamante ne ay mocckat lañu woon yëpp ay raaqi lañ woon ñëpp mu woole ne ku nekk kaay gaaral ma ni ngay moccee ni ngay moccee ak li ngay moccee lan la su nekkee nit ki dafa ñëw gaaral ko ko mu xam ne li alquran la wala maanaa yu nit xam la mu ne ko demal baax na su nekkee nit ki nag dafa ñëw mu nekk ay jata ki jinneeg ay jati nàngam mu ne ko lii baaxul bàyyi ko wàcc ko léegi ki nga xamante dafay mocc ab damm-damm di ko moccee ci lu nu xam baat yi ñu xam masalan mu wax naan yàlla yow mi nga xamante ne yaay wéral wéralal kii damm-dammam di mocc di wax loolu baax na wala mu jël ab aaya di ko ci jàng loolu baax na waaye ki nga xam ne dafay mocc ab damba damba wala ak rëkk rëkk aw faxut yax comme lu mel ni jamono daara ja ñu doon jàngal naan soo fotee da ngay wax bismillah yax ban yaxi ban soo ko waxee immédiatement rek sa sa yax bi day dëñ xalaas kon yu mel noonu dafa nekk loo xam ne dañuy laajte li ngay moccee lan la ba noppi fii baax na wala baaxul li ngay moccee lan la su nekkee alquran la xalaas baax na su nekkee ne wax yu ñu xam la maanaa yu ñu xam la ci wolof la ci bambara la ci séeréer la ci ma ci ci xeeti làgg yi la waaye lu nu xam la maanaa yi lu nu mën a xam la loolu insha allahu taala dara nekk ci wallahu taala aalam aleykum salaam wa rahmatullah wa barakatuhu sëñ xaarim barakallahu fikum tayib nit ki bind alquran lu mel ni masalan ixlaas loo xam ne alquran kese la mu bind ko ci fooy takk ko wala mu sangu ci wala mu naan ci loolu ay borom borom xam-xam yi dañ cee dem ay ixtilaafaat dañu am ay werante goo xam ne am nañ ko ci ñenn ñi de dañoo gis ñu ne alquran googu dawut li nga xamante ne doy alquran war na wees nit ki di ko takk ci ndiggam di ci tëdd wala mu takk ko ci ndiggam di ci dox dugg yenn bërëb bi wala mu ciy dem ci yenn bërëb bi kon alquran war ma alquran egg na foofu ñenn ñi gis ne déedéet lu tee kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ma koy jàngale naan de leen musloo ci aaya nangam ak nangam comme ni ko njabar jàppee woon ba jibril alayhi salaam ñëw ànd ak malaaka gu mu àndaloon jibril toog ci bopp bi keneen ki to beneen malaaka bi toog ci tànk yi ñu jàng ixlaas falax naas ba njabar googu dañ ba borom subhanahu wa taala xamal leen ne njabar gi moom ca teen googu ba sallallahu alayhi wasallam dañ dindi ko ci teen googu ba sëq teen nga lu borom bi subhanahu wa ta'ala jibril bindal len ko li son demé ngeen takal ko ngir mu fegg ci njabar ñeen dañu ne fofu lañu atte wo tayit masala yaani masala boobu mo gëna a ndax tak gi ndonte alquran kese la lahu dala sax mais da lay duggal ci lenen buntu la pour duggal la ci tak lenen loolu motax borom xam-xam ne nga koy jàng mo gën nga tak ko ndax man alaqata alaqa gogu googu yéen saa sallam wax ni kep ko xamne yaangi tak aw fas rek day dugg kon foofu fas googoog wala xànc ga day dugg ji ci tam tamam tamam gagu lay dugg wala tamim googu lay dugg loolu moo tax yéen borom xam donte alquran kese kese kese la sax lu gën mooy bu ko bind takku ko ndax da lay dugal ci leneen waaye nag nga koy jàng nga koy jàng su la neexee nga jàng ko ci ndox xalaas su la neexee nga nga nga jàng ko ci bopp nit yooyu insha allahu taala yun sa sallam def na ko digale na ko kazalika comme ni mu ko doon defal xasan ak xusayna am na xadis gu wàcc goo xam ne nag xadis googu maaw doola ñu ne ibnu masud dafa wax bi yéen saa sallam digale ne day leen jàngal seen doom yi comme nu mu koy defal xasan ak xuseynu aawdu bi kalimatillahi taama min shari ma xalaq nee na ibnu masud da ko bindaloon ab sëtam takkal ko ko ci baat ndax xale bi dafa nekk xale boo xam ne xale trois mois la munul jàng ñaan gi am na ñoo xam ne xadis boobu wax nañ ko waaye xadis boobu xadis mawdu la lu gën dal inshallah moy nit ki diko di def ay azkar sa wax masa comme ni koy saa sallam pour mu fegu ci njabar di def ikhlas fallax nas ayatul kursi pour mu na fegu ci njabar inshallah wallahu taala alam wa alaykum assalam wa rahmatullah barakatuh sin pap euh jamono ji nga xamantene yu ci upp élection yu suy djub ak wala ñuy djub élection mairie ak wala yu demee noonu dañuy gis ne da fay bari naam ndax xeetu shayatin yi nga xamante ne ñoom ñoo seeni yaani seeni liggéey dafay laaj ab deret ndax shayatin bu nekk dafa am liggéeyam lu muy laaj ñii ay deret lay laaj ñii lu weex lay laaj ñii nangam lay laaj ñii nàngam lay laaj ñi nga xamante ne ñoo gën a puissance ci ñoom deret la ñuy laaj ngir fal ab nguur wala fal tabb nit ci benn bërëb loolu nag dafa am ñoom li ñu lay laaj yenn ci ay deret yoo xam ne ñu laaj la nit waaye nit nangam ndax xam ngeen ne deret yooyu dafay dundal seytaane te seytaane gën gaa gàtt ci lu muy dund ci fan ku ci dund junni at faatu dañuy naan kii dafa deewee ndaw moo ngi mel ni ci doomu aadama yi ku dund vingt cinq ans faatu dañu naan ah dafa de faatoo ndaw seytaane yi ku ci dund junni at ci gën a gàtt ku ci dund junni at faatu dañu naan diw dafa deewee ndaw deret boobu nit ki di ko def da leen di gën a dundal day gën a lan yokk seen euh, fan loolu dafa bokk ci lu leen di dundal moo ngi mel nit ki ñu ne ko euh, ci kàttanu yàlla sooy lekk lii dangay ngay da lay dundal day yokk san ñoom nag boroom bi xal na leen ba tey deret googu bokkaale boobu wala deret yooyu nit ñi di leen rayal di leen tuural dafay dundal seeni fan ngir ñu mën a dal nit ki ci bërëb boobu sarax yi nga xamante ne dañu koy joxe nag du def tasiraat ci ci ci ci ñi nga xamante ne mooy njaboot gi waaye nag tasiraat dafay nekk ca jinne bi ngir mu mën a am accès ci xale yi ëllëg ngir mu meuna am accès ci xale yi motax tay so gisé sunuy jigen wala sunuy rak wala sunuy gor tay so ci gelé témèr bu fukk bo jël juróom-ñett fukk yi am nañ jafe-jafe shayatin do xam fuñ ko jëlé wala témèr bo jël juróom-ñett fukk am nañ am nañ am nañ nu ñu koy mbiru shayatin loolu da koy gis wala fukk yo gël juroom juróom-ñett yi am nañ mbiru shayatin loolu dafa am ci jamono ji ndax sarax yi non lek da fay def taasirat sax yi ñuy lekk mooy lan yow da ngaa sacrifier it ay doomu jàmbur ndax ji njabarkat bi dangaa dem mu digal la ne la dama ci bitikee bi nga jënd soow wala nga jënd suukar wala nga jënd hakaza wa hakaza léegi nag loolu mooy lan mooy sacrifier doomi jàmbur yi pour neexalee ko njabarkat euh, njabarkat bi neexalee ko jënd bi mën a def njabarkat bi li mu bëgg kon na ndax ñoom dugg ci doomu aadama yi dalee na lan dalee na neex te it ab faaseex lañ ay tamit ñaaw